Double Ndax ma ngay naan ataaya. ndeysaan ma ngay naan ataaya wala muy naan jarum soow. wala muy seet. ndeysaan ñu ñëw taxaw la. mbëggeel dafa foor. lii sas la. ñu ñëwaat ci bajo bajo ndeysaan ñu bàyyi ñu dundandoo ak ambiance bi ñu bàyyi na leen ngeen dundandoo ambiance bi comme ni ngeen ko gisee noonu mbokk antenne Saint-Louis TV ambiance bu doy waar moo fi am xale yaa ngay way xoolal xale yi lu way ñu bàyyi leen ngeen 15 ambiance bu fi am. jaar loola xale yi di way xalaa xalaa doo fi jaar xalaa man ngir ndeysaan mu ngi noonu ñu bàyyi la ñu gën a ambiance bi ambiance bi nga xamante fi am ci stade municipal bu Mohamed gis nga xale yi la ñuy toog li lan la ndeysaan xale yi kas na wóor na si kaw Mohamed ndeysaan xale yi ñu nañ ba ca kaw a kaw nga lamba leen jaral loolu waaye Modou Lo moo leen jaral loolu Modou Lo ñëwagul ndeysaan ñu ngi noonu nee nañ Modou Lo la ndeysaan ndeysaan ñuy wax Modou Lo mi gaaleem ñuy wax ni Modou Lo mi këram ñu waaj a génn pour ñëw kon Modou Lo dafa bëgg a lu muy def daal ñibbi hôpital ba wóor na sax foofu kawe naa jege naa li nga xamante ni mooy toiture bi ndeysaan moom it xale yaa ngay taal fi mu seen ñi ni Modou ma nga noonu bindu këram di waaj a laa ilaaha illa laa lamb na lii open presse wala lamb la man dama sax bii mbooloo xale yi dañoo na wu waaw parce que li ñuy woy neex na li ñuy tëgg neex na xanaa lii dañu ko répété ndeysaan ndeysaan mi ngi noonu xale yaa ngay way ndeysaan ñu bàyyi la nga noonu ambiance bi fi am lu doy waar ndeysaan ambiance baa ngi noonu ñu bàyyi leen ngeen dundoon ak ñun ci Sané mi TV ndeysaan mi ngi noonu ndox yaa ngi noonu ñu ngi séddale ndox yi ndax Modou Lo dafay waaj a dugg si waaye nee nañ ñu mi ngi waaj a ñëw ambiance bu ambiance baa ngi noonu yi nga xamante ne moom mooy stade municipal bu parcelle gis ngeen mbooloo bu deewaar bi nga xamante ne moom moo fi nekk gis nga mbir yaa ngi noonu xale yi ñu ngi taalal ci miseen baale ngeen dundandoo ak ñun ambiance bi ndeysaan Primizène yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu taalay Primizène boo xamee xoolal xale yi ci kaw zeng bi xoolal xale yi ni ñu ci kaw zeng bi ndeysaan ci kaw a kaw ndeysaan ñu bàyyi leen ngeen dundandoo ak ñun ambiance bi li nga xamante ni voilà moom moo fi am euh, fii ci stade municipal bu Parcelles Assainies waaw ndeysaan li ci gën a doy waar mooy ki suuf yor micro central bi la way xale yi ci kaw dañ ko feelu mu mel na lu ñu répété Desane mbokk yi Saint-Louis TV ambiance bu moo fa am tribune bi fees tuuru mu xamal xoolal yi xoolal miir bi xoolal xale yi foo sànni mu daal di tàkk waa lii lamb la wala doy saan ci lamb nee naa la aw bana yaa ngi noonu Mouhamed waaw aw bana yaa la lay def fii aw bana yaa moo nekk noonu ndeysaan aw ba ne yaa moo nekk noonu di fecc war kanu baalu bala ko sekk waa ndax moom mën loolu supporté wala en tout dañ ko laaj ndax nag sax jërul laaj ndax mu ñëwee fii xëy na cofeel mu am si moom ndeysaan mbokk yi ndeysaan xool ñu ngi yégal ndox mi ñu ngi ndox mi di wane li nga xamante ni moom moo fi am ñaar dem Ama Baldé ndox mu bëri la tuur buntu këram waaye waa ñu ñu moo looy itam bi ndox bu bëree bëri lañ fay indi teg nañ ko ba daal koy toj ah gen baal ma nag ki ma doon wax aw bana yaa <laughs> du aw bana yaa ànduroo am na nag moo Abakar Babacar Ndiour am na moo tax jaaxal ma ndax Awa Banaya waa Pikine la eh, ngeen baal ma du moom ndeysaan ndeysaan ña ngay sànni ndox ba si kaw ngi mel ne ndeysaan Mouhamed mi ngi noonu xale yaa ngi taxaw depuis combien de minutes ñu ngi nekk di xaar ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo ba léegi Modou que ñoom ñu ngi taaxirlu di xaar miir yaa ngi fes ndeysaan di baale ngeen dundandoo ak yéen ñi nga xamante ni moom mooy ambiance bi ak li nga xamante ni moom moo fi am ànd ak suñu butéel fii Saloum TV nee naa la Modou Lo nee nañ mi ngi këram fii nga xamante ni moom mooy unité 10 donc exegul bu ñëwee dañ leen koy jox en exclusivité waaye Babacar xale yaa ngi noonu taxaw ci kër yi waaye li lamb la wala open press ma dama waaw ñu noonu ñu bàyyi leen ngeen dund li nga xamante ni moom mooy ambiance ci biir li nga xamante ni moom bi. waa dama ndox bi. ndeysaan ngi joxe ndox bi xale yaa ci kaw gërëm yi. ndeysaan mbooloo bi nga xamante ni moom moo fi nekk bëri na loolu ndeysaan mi ngi noonu Babacar mi ngi noonu bokk na lu Saint-Louis TV comme ni nga ko gisee Papa Sow mi ngi noonu Papa Sow mi ngi noonu sol mooy Sénégal benn Papa Sow ngi noonu xool leen Papa Sow mi ngi si biir bi ay Mouhamed li ngay réalisé lan la Mouhamed li ngay réalisé lan la Mouhamed yaay macha allah ay soxna Penda sama jigéen ndeysaan Mohamed Mohamed a ngi noonu yow Penda toppal ma Papa Sow yow Penda toppal ma biir géew bi Babacar jëlal ma tribune bi Babacar jëlal ma tribune bi Mohamed Franc mi ngi mi ngi noonu Papa Sow léegi léegi fi jaar Papa Sow ngi noonu Penda Papa Sow ndeysaan Papa Sow ngi noonu moom noo noonu Papa Sow ak Modou Lo xam ngeen ni nag daanaka faral di contact guddi gi di ci wàllu contact ay ñoom Franc xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si jàmbaar ñoom ñëpp dañu mobilisé wu xoolal saa Touba xoolal Sa Touba wax Sa mi ngi si làmb ji ay fan yii mujjee. Ama na Ama dem na ci ci mbokkam réew mi. Ama na réew mi dem ba dem ba dem ba Guinée Modou Lo mi ngi fi woon demee mi ngi doon dox dox yi sew. cey Modou Lo cey Ama. cey sellu bu ndaw bi cey le roi des arènes cey Modou Lo cey Ama Baldé bu dimanche ay bu dimanche sifflé boole sifflé leen waaye cey bu arbitre ne prip Ama day dem mais Modou Lo dañuy tase ndeysaan bu ñu dajee nga gis lu rafet gis jël bu rafet gis ko baabu neex gis sax bu neex foo xeex ba foo fàtte Modou Lo di waaye yegsi ndeysaan maa ngi seen Papa Sow ma ngay def ay réglage maa ngi seen Khadim Gadiaga mënatul toog mënatul taxaw waajoo xam ne waay ci biir waay bu waxee sama xel dem ci Bécaye Mbaye bu waxee sama xel dem ci Xaadim Samb tey li ngay wax neex sama sama ah macha allah yow kenn du yow fa tabar ba kàllaaxu macha allah dégg-dégg dafa neex si doomu aadama te da ngaa dégg doomu ndey di xaritu jaag nag ndeysaan jaag ndaanaan bu mag bii le grand tàmbali ah. lépp ngeen déggandoo ko dégg nga Khadim Gadiaga ngi def déclaration waaw déglu leen